Euh, nekk responsable politique ci département bu Mbacké euh, yor lu jëm ci wàllum communication coalition benn Bokk Yaakaar ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal euh, Mamadou Diène Gueye ñu naan la général maa ngi lay nuyu. Jules Abdou Khadir maa ngi lay fay di nuyu sa auditeurs yi déglu émission bi yëpp di rafet lu aussi émission bi ni muy déroulé vraiment di nuyu personnel Rewmi FM yëpp di nuyu waa Touba yi nga xam ne si dafa laa jóge merci beaucoup. waaw jërëjëf euh, général euh, Mamadou Diène Gueye ñu naan la général euh, première laaj bi sax mooy lan moo tax ñu naan la général. waaw général ñu ngi ma ko tuddee ñu bëri dañu jàpp ne ci politique bi lañu ma ko tuddee. Hmm. Euh, mais tuddewuñu ko si politique bi ñi mu ko tuddee en 1993 booba ay xale la ñu nekk marché Occasion benn grand bu ñu doon wax Mao Guèye dañoo dajale woon ñun xale yi ñu bëri daan ne ku ëpp fit rek ku gën a def lu garaaw tey. Mm-hmm. boo ëppee fit rek dinaa la may 200 booba xam nga 200 xale deux 200. Mm-hmm. da koy xaw a jafe. après nag bari woon nañ trop léegi nag après man ma def. lu doy waar daal loo xam ne sax bëgguma ci dellu si après nag mu naan ne kii mooy général bi dañ may jox deux ans coow loolu ma toppoon général général nag ca la mbir mi jógee ba léegi nii. d'accord euh, Mamadou Diène Gueye ñu naan la général yow nga nekk conseil municipal ci commune bu Touba nekk responsable politique APR euh, dinañu ñëw ci élection législative yi waxtaan ci. Euh, ndax coalition benn bokk yaakaar yow la ñu dénk wàllum communication bi dañu bëgg wax tuuti yow ci sa début ci APR ndax dañu gis ne commune Touba jamono ji nga xam ne tey 2008 2007 2008 2009 ba ni président Macky Sall nekkee njiitum réew mi 2012 euh, tudd ko Touba yombutoon yow nga bokk si ñi ko njëkk a jàppale ndax mën nga ñoo nettali euh, li nga xam ne mooy sa début ci ci parti boobu di APR. ah bien sûr parce que histoire moom bu rafetee nettali ko du du du jafe. Euh, APR président Macky Sall man ci laa politiqué man lu jiitu loolu sama liggéey laa nekkoon nekk citoyen sénégalais di def sama business di liggéey yore sama métier awma woon kii ak politiciens yi mais président Macky Sall nag bi mu génnee assemblée nationale def déclaration bu rëy boobu nga xam ne histoire bind na ko après nag si laa ne kii vraiment nit la koo xam daal jàpp naa ne war naa koo jàppale ci laa engagé wu ne damay dugg ci politique am ku ma boole ak Diène Farba Sarr ci jooju jamono. ma woo Diène ba ñu wax mu ne ma Touba Moustapha Cissé Lo moo fa nekk daan may jox numéro Moustapha Cissé Lo jël sama numéro jox Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo daan may woo na ma nan la ñuy def ba gisee ma ne ko comme kilifa nga baal ma déplacé wu ci laa déplacé woo dem këram ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ma tàbbi si parti bi loolu c'était en 2008 2009 bon bi ñu bi ñu àndee maa ngi fàttaliku président Macky Sall bi muy dugg si Touba. bi muy waajal élection yi 2012 yi dugg si Touba le 6 mai 2010 jamonoy sëñ Alaaji Baara yàlla na ko yàlla yërëm booba li ko topp matul 30 personnes te ci laa bokkoon mooy coow loolu nga xam ne amoon na si diggante Moustapha Cissé Lo ak euh, Pata Diakhaté dans ce cas man Moustapha si camp wu Moustapha Cissé Lo laa faroon àndoon ak moom nekk problème ñu kar président Macky Sall ngaabu c'était pas facile bëccëg boobu ñu ñu war ko dévier pour jaarale ko si autoroute ngaabu bi pour dugal ko Touba Pata Diakhaté taxaw. Touba Owaal bu Mbàkke daan ne fii la Macky Sall di jaar muy ñaari camp yu jàkkaarloo nga xam ne bi président Macky Sall ñëwee def nañ foofu une heure de temps di régler lool président xamul dafa war a jaar si Mbàkke pour Pata Jaxate xamul dafa war a suivre Moustapha Cissé Lo mu nekk ay jafe-jafe finalement Moustapha Cissé Lo mu di gagné combat boobu ñu jaar noonu loolu le 6 mai le 2010 bi ñu ñëwee si gars yi dañu bloqué bunt yi fexe comme fii ni muy demee rek fexe ba du ñu gis sëñ Alaaji Baara bëgguñu président Macky Sall bëgguñu woon Macky Sall gis sëñ Alaaji Baara bëgguñu ko woon. loolu homme politique yi la woon wala bëkk néeg yi la xam nga fii euh, kër sëriñ si des fois da gis ñoo xam ne si dañuy jaxasoo om politique yi ñu nekkal leen fa day am comprendre nga léegi nag bi ñu ñëwee agsi nañ fi ay midi toog nañ fi bët 18 heures ci lañ doog a gis sëñ El Hadj Baara Baye Cheikh Awa Balla bu sëñ Fallou bokk na ci ñi jàppoon ci mbir mi pour ñu mën a gis sëñ sëñ El Baara ak sëñ Dalas Kaltoom mi à l'époque booba Sall Saal Mbacke Alaaji Baar Sëñ Saal Mbacke Alaaji Baara xaritu Macky Sall ñoo fexe ba deqin si situation bi pour ñu gis président pour ñu gis Sëñ Alaaji Baara te ñëw nañ fi midi ba 18 h trent lañ koy doog a gis maa ngi ak image ba léegi. bi ñu ko gisee Sëñ Alaaji Baara mu sa président Moustapha Cissé Lô moo jël micro commencé di wax ne ko kii dafa soxla réewam bi muy commencé wax mu ne ko jox ko mu waxal boppam maa ngi toog. président Macky Sall waxal boppam daan na ko damaa soxla réew mi dama ci am yéene wax la muy wax ba pare sëñ Alaaji Baari ne ko fii yaakaar du fi tase su fekkee ne li nga wax dëgg la si yow demal ci borom baraag bi nga ñaan ko ko te loolu lépp témoin laa si histoire ca suba ga la la si suba ga di la 7 mai 2010 su ma juumul bisu àjjuma la ñu julli ci jumaa ji ba noppi lañu ñëw Daaru Manaan man Daaru Manaan laay militaire bi ñuy ñëw Daaru Manaan président Cissé Lo def na ma président Cissé Lo si boppam moo ne ma wool sëñ Mbàkke Dabasaar foofu yaa fa nekk ma woo sañ Mbacke Daba Sarr ñu calé rendez-vous ñu ñëw bisu àjjuma boobu ànd ak président Macky Sall délégation ba Mor Gaye ngi ci woon Abdoulaye Seck Sadaga ak ñeneen ñu tuuti ci jeunesse bi ñu ñëw foofu ci sëñ Mbacke Daba Sarr booba kër kilifa yi ñuy dugg ñu recevoir Macky Sall bariwul. loolu moo am waaw bien sûr bien sûr dañ daan dem ci këru kilifa ñu ne sëñ bi dafa fatoo hmm. booba léegi nag lu sotti am borom mais buñ doon wax histoire bi du jeex. mais est-ce que tey ñi nga xam ne tey ñoo ubbiloon président Macky Sall seeni bunt est-ce que tey reconnaissance am na ci. waa xam nga li tax reconnaissance du si mën a am parce que nekk candidat ak nekk président tamit bokkuñu il faut nga comprendre président Macky Sall xam naa nit ko am kóllëre la mais fa mu tolloon di wut mënatut a dem foofu yépp te it ñi ko wër yore asandaam ñooñu ñoo ko war a yaatalal xam ne sëñ diw mii xàmmee woon nañ ko jëloon na position boobu may muy metti te boobu yombul woon indil ko sëñ diw moom wala ñu fexe mu jotanteeg moom wala ñu fexe mu di ko jariñ xam nga li ma la wax. am na ay militant wala ay responsable yoo xam ne ba ñuy metti Abdoulaye Wade yor xaalis bu bëri di yebal ma dikke ñaa Touba ñu ñëw di jël nit ñi di leen di leen jox xaalis ñuy dem am ñoo xam ne dañoo resté woon ñooñu keroog bi président déggee président ba léegi teguñu ko bët joxuñu ko loxo amuñu sax juróomi junni yu mat kooku mooy dëgg mais du si président parce que pré booba Macky Sall la amoon mais léegi président Macky Sall la nga am léegi nag dafa am ñum dénk ginnaawam ñu ko yoreel politique bi ñu ko yoreel santé euh, bi ñu ko yoreel leneen ñu ko yoreel leneen kenn ku si nekk nag la nga yoreel président Macky Sall yow yaa ko si war a dimbali yaatalal ko ko daan ne ah xamoon naa benn général de wala xamoon naa benn sëñ diw de wala xamoon naa benn jili Abdou Khadir de juróon na position ci moment yi gënoon metti kon naa tey naa fexe ba mu gis Macky Sall ndax man mën naa fexe ba Macky Sall woo ko téléphone wala mu jot ko wala mu dimbale ko waaw jërëjëf euh, général Diène Gueye euh, tudd Mamadou Diène Gueye ñu naan la général nga nekk responsable politique mm. fi nga xam ne tey moom mooy euh, commune bu Touba muy commune bu jafe lool ci président Macky Sall dinañ ci daal di dellu si ci élection locale yi ak département bu Mbacké mais dañuy ñëw rek ci de manière général ci élection législative yi nga xam ne tey moom la ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ñi nga xam ne tey ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom jàpp nañ ne dinañu gañe li nga xam ne tey euh, moom mooy moom mooy élection yi euh, tey ñoom seen taxawaay euh, est-ce que amu leen xel ñaar wala ak tiitaange cohabitation am assemblée nationale. non gëwuma cohabitation am assemblée nationale loolu moom gëwuma ko mais li ma wér mooy waa Benno Bokk Yaakaar war nañ liggéey bu baax ci élection yi parce que tamit gis nga nguur. du nuroog buñ la koy doo ko jox du nuroog boo ci yàggee parce que boo ci yàggee euh, opposition bi dañuy gën a defaru ñi nga xam ne sànq li ñu doon wax manque de reconnaissance bi nga am ci say nit yoo xam ne si ne jàpp nañ ne da nga leen a faale sànni leen ku mer ngemb da ngay dem foofu te opposé moo gën a yomb ci ci àdduna bi moo tax opposition kenn du ko xeeb parce que yàq langug noon dafa yomba dafa yomba organiser ndax ku mer rek da nga fay dem moo tax man gëm naa ne cohabitation mënut a am waaye nag toog di ko gëm nii rek dangay ngay wàcc nag sur le terrain nga liggéey li ma gëm tamit mooy Yewwi nekkul coalition bu ñuy minimiser ku xam politique doo ko minimiser parce que tamit aussi ña fa nekk am nañ parcours politique tey ay leader ñoo fa bokk nekk loo wax xam ne PDS dafa am histoire ci Sénégal ci opposition ci pouvoir Ousmane Sonko ki nga bëgg ko ak nga bañ ko ñëw na jël euh, troisième ci élection passée comprendre nga élection locale yi yi gagné na ay mairie yu mag kon ñooñu tey sii mois après nga ñëw bëgg ne mënuñoo mënuñoo am dara loolu da nax sa bopp te man nekkum nit koo xam ne damay communiqué wala di wax ak aw askan di nax sama bopp di nax aw askan en tout cas gëm naa ne cohabitation mënta am waaye ñun nag ñun ñoo ñun waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu ko gëmee nii tamit dañ ciy war a liggéey liggéey si ni mu ni mu ni ñu ko war a liggéey ñëpp ni ñu war a waxal ñu wax ak ñoom ñi ñu war a jàppale ñu jàppale leen li ñu war a feeñal ñu feeñal ko parce que tamit suñu président de la république tamit neexut a naqariwut a jaay si si réew mi parce que quoi qu'on puisse dire am na bilan boo xam ne si ne man na si na koo jaay ndax lu ne fàng tamit aussi kenn du ko jeex lu ne fàng kenn du ko jeex président Macky Sall wax waxal wax wax jëfam ci askan wi loolu kenn wuru ci am complexe. mais est-ce tey par exemple tey euh, benn Bokk Yaakaar euh, de manière général ci euh, au niveau national tey ki nga xam ne mooy seen tête de liste Aminata Touré est-ce que jàpp nga ne profil bu baax la par rapport ñu gis Amadou Ba fële ak Abdoulaye Diouf Sarr fële Abdoulaye Daouda Diallo fële ak ñeneen ak ñeneen tànn gi ñu tànn euh, euh, Aminata Touré ndax sa xel dal na ci. waa xam nga tànn moom ku ko def da ngay bàyyi dara parce que Aminata Touré tamit day jigéen la ñee di ay góor mais yóbbu luñ ko dara sur le terrain aussi tamit jàmbaar la marqué na empreinte am. na fa amul base politique may ma tuuti rek am na fu mu jaar. Aminata Touré du base politique am ñun moom la ñu soxla fi mu toll nii ñun base politique gu Benno Bokk Yaakaar lañ soxla am na lu ci am am na ay nit am na lu mu ci am. malgré que dem na ay élection perte ay gox loolu d'accord naa ci mais nag teewul moo am ay nit mais fi mu toll nii du base benn nit lañ soxla du base u Amadou Ba lañ soxla du sama base du baasu ay Ablaye Diouf Sarr non base benn Bokk Yaakaar ñëpp te Aminata Touré day dugg si biir Amadou Ba dugg si biir man ma dugg si biir keneen dugg si biir ki am ñaari nit indi ki am ñetti nit indi ku am téeméeri nit indi comprendre nga problème bi nekkul problème mu Aminata Touré du problème ku tànn xam nga man problème la problème collectif la équipe la. nañu gëm ne nañu gëm ne dañoo équipe mooy gagné du Aminata Touré Aminata Touré dafa nekk si bopp bi rek dafa nekk si bopp bi ku wal mburu tudd ab dëkk mënoon nañoon tànn sax général ma jiite liste ba noppi gagné les yi xam nga lu koy gagné man man mi nga xam ne kenn xaw ma mënoon nañ ma tànn ma jiite liste nationale ba noppi gagné élections yi mais dañuy wax ne benn bokk yaakaar bëggante amul ci seen biir parfois tamit alliés yi dañuy faral di seetaan waa loolu loolu mën naa ko wax mais dama lay wax benn affaire alliés yi am na ci ñoo xam ne si ne man gëm naa ne. Hmm. la ñu war a def seen diggante ak président Macky defuñu ko. waaw allié yi loolu laa gëm. parce que li ma gëm mooy nit mënoo lekk mënoo lekk teraangaam ba noppi bàyyee ko ak ay noonam man gëw ma loolu. mënu hmm. te man ñi ma ci gis ñu baree bari bi ñu nekkee ci biti dugaguñu chaque semaine ñu génn def sorti wax seen xalaat ci session bi nga xam ne moom la Macky Sall di gérer réew mi chaque semaine. ñu génn waaw. Sitor Ndour kañ ko gëj a gis mu taxaw di wax. Diagne Fada nga dem toog. presque waxul. Moussa Souleymane Ndéla la Moussa Sy Omar Sarr bu bu Touba bii Omar Sarr bu réew mi c'est-à-dire dañoo mel ni dañoo jombale seen bopp dem si plateau télévision yi wala ñëw ci réew mi FM yow di la doxaat jàkkaarloog yow défendre président Macky Sall mel dañ ko jombale seen bopp. Idriss Iddi kay moom mi ngi def sorti Iddi bërki dem démb rek génn na def sorti avant événement la le 29 bi gars yi def nii au moins il a courage di wax lim xalaat si diggante moom askan wi hmm. comprendre mais nit soo ànd ak moom. mais lan nga bëgg a expliquer ne avant ñoom doon nañ défendre président ñu jox leen poste défendre duñ. am na ci ñoo xamante ne leen président Macky Sall jox seen base politique lañ koy yokkee si aw nit lañ koy wutee mais liggéeyaluñ sax président Macky Sall kooku mooy dëgg ay nit bu ñu ànd dañuy waxante dëgg te président Macky Sall di leen jox teraanga ñu yore oto yore passeport diplomate yore ay privilèges. comprendre nga te président Macky Sall moo ko jox suba suba bu ko neexoon mu jël kon bu leen ko joxee dañuy gore ba noppi nag jox seen bopp aussi président Macky Sall parce que bu ñu seetee ci histoire du Sénégal bu njëkk nit daana faye bakkanam sax ngor guñ ko lebal mais mënoo ne dangaa jàng am xam-xam yàggal liggéeyal réew mi xam lu ma xamul man mii di wax ba noppi yow nga toog lank na yow jombale sa bopp dem télévision pour défendre président Macky fii ñaata nit nga fi gis benn daanaka benn groupe bu ndaw ñooy tourné ci télévision yi di défendre Macky ñi ko war a jàppale dëgg entourage bi des na. waaye ñi mu ñi mu jox teraanga daanaka jàppale wuñ ko laa la wax parce que Mbaye Jacques Diop yàlla na ko yàlla yërëm daf na woon politique dox wax ba fol ba fal nit dox wax ba fol nit politique dafa saar yu moo gudd saar wu gàtt la politique explication la indi ay leeral ci bopp askan bi convaincre doomu aadama alors que yow mi nekk kilifa nga ne doo ko def yow mi ñu jox responsabilité xam nga ma toogee di wax ci santé ki ñu jox santé a gën a mm-hmm. ma toogee di wax ci ki ñu jox éducation moo gën a mën a wax ma toogee ci wax ci Sonacos ci gerte gi ki ñu jox Sonacos moom ma ci war a gën a wax Amadou ma moo ma gën a xam finance ak ñeneen ak ñeneen kon ñooñu ñoom ñi ngi ko jox bu ñu la ko joxee da nga man dama gëm ne chaque semaine kenn ku si nekk waroon nga génn wax wala chaque deux semaines wala chaque un mois nga génn toog plateau télévision défendre euh, programme président Macky Sall. waaw mais dañu dañu gis tamit ne tey boo xoolee tey coalition yi yi nekk ci opposition bi gis nañ euh, ànd bi ñu ànd ñoom ci seen biir dañu gis leader yëpp ñooy toogandoo. ñooy baatorandoo campagne euh, lu mel noonu gisuñu ko ci euh, Benno Bokk Yaakaar lan nga jàpp ne moo waral loolu. waaw xam nga loolu moom lenn mooy problème bi ànd opposition moo gën a yomb ànd pouvoir ndax ànd wuti moo gën a yomb am séddoo mm-hmm. ànd moo gën a yomb am séddoo ñi ànd di ñaari doom buri opposition bi pour ñu ànd jafewut parce que amuñu lu ñuy séddoo mm-hmm. amuñu ay crainga amuñu big buy signé décret mm-hmm. fii nag ay intérêt moo fi am ak ay positionnement loolu mooy débat bi moo tax ànd bi day xaw a jafe mais bu bu loolu lépp amee tamit réalité politique la mais boo intérêt président taxawee ñëpp dañu war a génn futteeku ñëw sur le terrain parce que loolu ku ne bala nga ne naan da nga fay ne fekk président Macky Sall nekkul ci palais bi li ñu yor du sotti kon nag tey jii li ma gëm mooy ñëpp wala futteeku mooy la mooy dem seen base politique yi génn taxaw wax ak nit ñi wax programme président Macky Sall mooy ngor mooy jom loolu laa gëm. te gisoo loolu. gisuma ko man en réalité. waaw mais mais yow sànq général yaa ngi wax ne cohabitation euh, gëmoo cohabitation am mais soo gisee tey coalition yeeyu askan wi taxawaay bi ñu amoon ci élection euh, locale yi nga gis euh, coalition aar Sénégal boo xamante ni tey ñoom Thierno Alassane Sall ma nga fa mu am expérience ngeen bokkoon sos seen parti APR Thierno Bocoum aussi nekk fa. Uh, Abdourahmane Diouf ak ñeneen ak ñeneen nekk fa boo demoon tey bokk gis-gis bu Pape ñoom Aliou Sow aussi nekk fa tey uh, yooyu yëpp. Euh, ak wàllu bu PDS nga taxaw ne gëmoo cohabitation foo ko teg. non gëwuma ko parce que tamit li tax gëwuma ko mooy même gars yi am na ci ñu bëri ñoo xam ne sax ñu deful li ñu war a def président Macky Sall ci boppam dafa am électorat boo xam ne yóbbu ko cohabitation yombul président tamit nit ñi dañ ko bëgg de parce que nag il a fait pour le Sénégal kooku mooy dëgg. président Macky Sall tey jii bu élection yi bu nekkoon ak élection yi mu wàcceel boppam de le terrain benn voyage leen di def. mais ma ngi campagne waaw dafa nag waaw dafa nang rek bu fekkoon benn élection yu wàccal boppam la sur le terrain benn voyage leen di def te feeñ na si élection 2019 yi passé benn voyage lañ leen def am na ñoo xam ne ñu bari dañ doon wax naan Sénégal kenn mënu fee gagné premier tour mu ñëw dóor leen 58 pour cent dem taxaw na la président Macky Sall en personne moom dafa am électorat wu boppam ñoo xam ne même bu ñu doon nelaw bu ñu yeewoo Macky la ñuy voté léegi nag gars yi mu àndal bu ñu góorgóorloo tuuti laa la wax am jom fas jom fay ngor. benn voyage lañ leen di def problème bi du problème. mais est ce que ñooñu ngay wax ji nañ ko askan wi. am na ci ñoo xam ne day vraiment man gisuma ne sax yaayoon nañ nekk ministre wala directeur pour dire vrai. pour dire waaw parce que politicien du nekk star. dafa mel ni ñoom am na ci ñoo xam ne ñu bëree bëri indisponibilité dañoo jàpp ne mooy dëgëral seen décret bi ñu leen jox politicien yow yaa dox sa diggante ak askan wi ak ak état bi. yàgg ndox yéen war a yom yem ndox gis nga ni mu ni mu ne ndox njëriñam li xam nga tax nit ñi sentiruñ ko mooy yomb gum yomb si kanam askan wi mais ndox xoolal ba manqué woon 24 heures ci àdduna bi yëpp mais baax gi mu baax moo tax mu yomb yàlla yombal ko politicien da mel ni war a mel ni ndox waxuñu heure bu ñu la woowee jot la de ndax nit kenn ku ne mënul lool mais dangaa war di ubbi sa téléphone ku la woo jotu tamit soo toogee ba am temps nga ko di déglu askan wi di xam lan mooy seen soxla nga di ko def parce que liñ la jox moomoo ko doonnoo ko ci sa baay doonnoo ko ci sa yaay dàqoo fee jàng dañ la wóolu rek jox la ko te buñ la xasee jox ministre boo dëkkee Kolda boo dëkkee Mbàkke ci yam du waa ñoo ci war a bénéficier wu ñoom kese wala keneen keneen Sénégal la comprendre nga moo tax nag man li ma gëm mooy suñu defee ñoom li ñu war a def fekk si président li mu am benn voyage la ñuy def opposition bi parce que président moom kenn amut loo koy wax ci Sénégal bu fekkoon ne 1960 bi ñu amee indépendance dañoo xëy dal ci Macky Sall kon nëgë ni France la ñuy compétiral. jërëjëf euh, général Diène Gueye danañ ñëw ci euh, xiif bu metti bi nga xam ne moom la Sénégal yi nekk ak ndóol gi nga xam ne gis nañ ne ma ngi gën di yokk ci réew mi euh, yéen a ngi déglu rajo réew FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité Mamadou Diène Gueye mu nekk conseil municipal ci commune bu Touba yor communication Benno Bokk Yaakaar ci département bu Mbacké ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal tey li ñu ko mooy ci biir benn mbokk Yaakaar. dañu gis ne bëri na ci ay ndaw yoo xam ne euh, dañu frustré ci gox yu baree baree bare yu wuute euh, ci biir ci biir Sénégal euh, loolu ndax yow loo nemmeeku la. bien sûr am na am na ndaw yu bëri yoo xam ne dañu frustré wu loolu mooy dëgg parce que ay ndaw yu président Macky Sall yu jirim lañu. dañoo jirim mooy bien sûr parce que mu mënuñoo jote ci président Macky Sall te responsable yi nekk ci seen gox yi képp ku nu mu a wax diw laa àndal fés duñ la jàppale. loolu mooy la. c'est-à-dire président Macky xam nga dafa am benn structure bu ñu tuddee COJER. mooy ndaw yi parti bi nga xam ne parti bi ñoo moom ndaw yi parti bee leen moom. président Macky Sall nag daf loolu dafa nekkatul ci loxoom. li tax mooy xam nga COJER bu njëkk sax daan nañ dajeeg président Macky Sall chaque année ñu dem Mbour dajeeg moom si li ñu doon wax université républicaine ñu dajeek moom teg moom kii mais léegi loolu amatul te ndaw yi doo gis benn audience audience. nga gis fukki ndaw yu si yu mat yu si nekk yoo xam dañ naan tey ndaw yi sa la Macky Sall di déglu moom la ñuy dalal yoo xam ne si ne ndaw ko géré waaw bañ xam nga ni bala nga koo mën a amal njariñ yaa ngi comprendre da lay bëgg a jariñoo kooku mooy dëgg ndaw yi li tax ñu jirim mooy gox yi ñu nekk leader ya fa nekk soo newul ne man diw laa àndal comprendre nga mm-hmm. boo ne man Macky laay lay réclamé woo taxaw foofu ne Macky Sall la kenn du la faale kenn du la faale mais boo nee man comme par exemple boo demee Yoff ne Ablaye Diouf Sarr laa àndal Ablaye Diouf Sarr boo amee lu muy joxe yow la koy jox wala Amadou Bala Amadou Ba boo amee lu muy jox yow la koy jox ñoom xoolal ku leen wax man la ñoom bëgguñu ko wax Macky Sall laa ñoom del wax diw laa ah, ok nga del wax parce que ñoom li ñuy préparé xam nañ ne tey falu mën naa am folleku mën naa am ñuy préparé ndaw yooyu nga xam ne ëllëg bu ñu folli folli ko ànd ak dem di xeex comprendre nga ku ñëw indaale ñi nga sa njaboot booy génne yóbbaale leen soo nekkee ci biir nekk nga ci biir ak sa njaboot boo génne yóbbaale nga xam ne léegi dañuy dem ban parti bi dutu am ay ndaw ay leader ñoo fi nekk ndaw yu tasaaroo ci seen loxo kenn ku ne téye groupe ndaw loolu mooy problème bi mais bu fekkoon tey jii président Macky Sall am na benn kanaal bu mu mën a di di téye ay ndawam di wax ak ñoom comprendre ja ba noppi tamit dénk leen coordinateur bu mat coordinateur parce que man gëw ma ne Moussa Sow aussi tamit coordinateur bu mat coordinateur la gëw ma ko man dama ko gëmul rek man man man man ni ma nekk ndaw nii ak li ma yëg sama bopp ci politique. Hmm. man gëm naa ne su ma jiite woon ndaw président Macky Sall dina gën a am ambiance dana gën a yëngu. parce que ndaw mooy fer de lance su parti waaw ndaw mooy fer de lance su parti man gëm naa ne man ndaw yi dañoo dañoo dañ leen a animé wut. leen war a animé. gëm naa la da nga jàpp ne COJER dafa dee kon. waaw gëm naa ne COJER moom fu ñu toll nii nekkatul ci loxoy parti bi. dañoo tasaaroo ci ci ay leader. koñ gox gox boo dem. ay leader ñoo am ay ndaw mais Macky Sall amatut ay ndaw ndaw yi nekkatuñ ci loxo kooku mooy dëgg. mais est-ce yi gëm nañu Macky Sall. ah xam naa ne gëm nañ leen maanaam ñi ànd ak Macky Sall di ay ministre di ay directeurs généraux dañoo sàmm seen poste wala réellement. ñi ci bëri daal ñi ci bëri daal seen intérêt daal gëm naa ne moom lañ gëm mais Macky Sall ñi ko ci gëm moom am na ay benn benn nag yoo xam ne gis naa leen moom vraiment ay jàmbaar lañ ñoo ngi liggéeyal Sall. waaw ah, mais boo leen tuddee sax si ab émission dañuy jàpp ne yow da am intérêt fekk sax xamuñu la yow yaa xool seen liggéey rek moo tax jur sax ngay tudd tur. boo ko tuddee fi mu toll nit ñi dañuy jàpp ne koy defal da da lay gérer wala nangam mais am na ci ñoo xam ne nag vraiment gëm nañ ñi rek parce que koo ci tudd rek dañuy jàpp ne ay intérêt tax ngay wax te man loolu man ma ci dara. d'accord wóoyoo man benn bureau ministre waruma benn bureau directeur di taxawaat. d'accord léegi comme relation rek euh, man dama gis ne yéen Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi du opposition bi rek ngeen jàmmaar lool ngeen jàkkaar lool mm-hmm. waaye opposant bi gën a dangereux mooy dund gu cher gi ak jafe-jafe yi nga xamante ni tey moom la sénégalais yu baree bari euh, nekkee ndax tamit loolu jàppoo ne mën na leen a indil jafe-jafe ci élection yi. waaw xam nga gu cher gi moom yow journaliste nga xam nga li ko waral dañoo jóge ci Covid jóge si dal ci guerre Ukraine bi te ñun nag nañ waxante dëgg ñun ay réew lañ yoo xam ne si ne suñu doole bariwut. loolu loolu waaw ay ay dépendant lañ fam ñu toppee dafa sori fam ñu toppee moo sori suñu les premières sommes yi nga xam ne si ne ñoom ñoo dirigé woon Sénégal dafa am lu ñu raté dafa am ñu teg dóor ko ci poto bi mu génn kooku mooy dëgg loolu nag pour ñu réparer ko ay génération génération la comprendre nga moo tax nag dafa am loo xam ne nag dépendre ñun ci ñun bu seeree ci kaw bu wàccee suuf day gën a seer kooku mooy dëgg loolu moo tax réew yëpp pour ñu toll nii dañu am problème président Macky Sall def na ci ay jéego dem seeti président Euh, Poutine wax ak président Ukraine xool nan la def ba mën a arrêter guerre bi pour adduna bi gën a mën a noyyi parce que ñooñu la yàlla jox doole ji dañ koy nangu ñoom la les premières puissances mondiales. mais général am na lu yokk loo xam ne yoonu guerre bi nekk. non moo yokk lu yoonu guerre bi nekk. waaw léegi sinon ciment baa ngi nii dafa yokk. non léegi soble saa ngi soble seeg waaw léegi xam nga nag dama lay wax benn affaire dafa am ay yoo xam ne ñoom ñoo yërëmut tamit seen askan boo waxee état xam nga. xam nga tabaski di jub des ñaari fan commerçant bi stocké sobleem xëy xëy yokk ko comprendre nga état tamit war na ci jël ay mesures d'accord naa ci mais commerçant yi tamit de il faut ñu xam ne tamit askan wi ci lañ bokk am na ñoo xam ne si ne seen yokk duñ ko teg fenn dañuy xam ne nit ñi soxla nañ ko ñëpp songandoon nañ ko ci marché bi ñu mooy dëgg. ceeb bi ceeb bi wax naa la ko sànq di nee naa fépp ci àdduna bi ceeb bi ñun am ceeb bi ñuy dundee ñu ñun daanaka ñun. Eh, bayi ñu ko léegi général mooy kon échec boo xam ne tey est-ce que du échec bu bu am ci président Macky Sall. waaw ndaxte. moom dafa ñu diggoon consommer local. waaw maanaam bay dundee ci lu ñuy bayee fii ci réew mi. mais ñun soble amuñu si lu doy. moom euh, bu lox loolu. non non non bu lox loolu xam nga jiw waroo tax loxo lool. des fois am na benn moment boo xam ne si ne jaaykat soble dañuy génn di wane ne seen soble yaa ngi yàqu ci àll bi. Mhm. dañuy bay ba wane ne léeg-léeg ñu génne pomme de terre ne pomme baa ngi yàqu si àll bi mhm. dañ koy génne te yow loolu da koy gis waaw dafa lànk rek rek déedéet kon da leer na kon ñoo ngi xam nga buñ ko bayul woon du fi yàqu ci àll bi léegi nag loolu laa la bëgg a wax nag li ko laa la bëgg non déedéet bul wax lajj non boo ma laajee fan la lajjee waaw kay léegi fi mu mooy ñu ndaw ñi nangu nañoo produire ah. wut nañ jox nañ leen ay hectares. mais président Macky Sall moo leen war a wutal ay infrastructure de conservation foo xam ne mhm. lu ñu bay mhm. fa lañ koy denc mhm. ba du yàq. bien sûr loolu am na ñu ci programme président Macky Sall programme Sénégal émergent la lépp ci dugg tey ji ay centre de formation tasaaroo na ci département yépp formation professionnelle boo ñëwee tey gis nga Prodac tey jii foo dem gars yi fi mu toll nii dag dag yaa nga fa jeunes yaa ngi liggéey. diggante summi mbubb nag ak sol mbubb yaramu neen mënu see yàq wax naa la depuis mille neuf suñu premier dirigeant yi le 1960 dafa am bal bu ñu teg raté ko. waaw nee naa la pour ñu dindi ko nag ay génération génération te yow leer na la ne président Macky Sall li mu def ci programme. ci programme pour jëlee Sénégal fi mu nekkoon yóbbu ko feneen. leer na la ci wàllum dund gi de réussir aussi. mais dafa nag yow yow Sonacos ngi nii Sonacos ngi nii bu Sonacos baaxoon Sénégal du am diwlin gu cher est que xam nga diwlin gi ni mu te Sonacos lan mooy njëriñam Sonacos moom d'accord naa ci gëm naa ne dëgg directeur bi moom fi ma ko xaaroon ñëwu fa kooku mooy dëgg man gëm naa loolu parce que man dama doon yëngu ci gerte xam naa gerte. Hmm. gëm naa gerte gerte gi na mu jaloo foofu ci Sonacos jalu fa noonu nar faa yàqu nga xam ne chaque année dafay yàqu mënoon nañu am beneen méthode parce que Rajat bi mu ñëwee Touba fii sax nit ñi doon nañ ci liggéey plus de 3000 emplois do amoon na Touba. Hmm. ñu daan nal diw gi comprendre nga diw gi bari ñu daan nal diw bi transporteurs yi doon transporte gerte gi di ko jëlee li ñaan Kaolack am ci dara. bu ndoxatal leen. déglu ma rek ñi daan transporter gerte gi am ci dara ñi daan raxas bidon yi sax dañ ciy am dara am emploi lañ rey foofu gëm naa ne ambition man gëm naa ne xam-xamu directeur boobu moom des na ci wàllu gerte man loolu moom gëm naa ko. mais yow dund gi est-ce que yow ni ñu ko comprendre nii naan Covid beeg euh, ngeen di taafantaloo guerre bi est-ce que mënu leen indil jafe-jafe ci élection yi ndax dama gis ne Sénégal yi euh, dañu sonn. te jamono ji njëg yépp waxuma la doublé waaye dañ koo ñeentite. waa mais nag bul fàtte ne état temps yële rek passé génn na cinquante milliards pour subventionner yu bëree bëri pour jàppale askan wi ci biir dund gi carburant beeg

wàcc sur le terrain. seen agent seen i agent def contrôle wax ak commerçant yi. ku nanguwul a tegu ci li ñu la teg ci droit yi nga xam ne si ne moom la état bi teg ñu sanctionné la am na ci loo xam ne nag état da koy def ba noppi ñu war a wàcc sur le terrain ñoo wàccul am na ci yoo xam ne commerçant yi ñoo ci demee seen bakkan ñooy xam ne lii am nañ ko lu bëri nit ñi soxla nañ ko ñu yokk ko am na ci loo xam ne tamit état aw askanam ñoo ko si war a dimbali kooku mooy dëgg. d' accord léegi euh, Mamadou Diène Gueye yow nga nekk conseil municipal ci commune bu Touba nga nekk responsable politique APR sànq nee naa la man si li may gëm mooy am ngeen jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi ndax opposition bi ma gis. coalition la boo xam ne coalition lañ yoo xam ne mën nañ leen a sonal beneen bi dund gi ma gis ni mu yokkee mën naa sonal Benno Bokk Yaakaar mais beneen bi nga xam ne tamit jàpp naa ne tey opposition ñoo ngi koy politiquer te mën na leen a sonal mooy lu jëm ci troisième mandat troisième euh, candidature Macky Sall projet boobu ndax dañoo gis ne dafa bëri ñoo xam ne ci biir Benno Bokk Yaakaar nee nañu président Macky Sall dafa war a test euh, tenté euh, posé waat candidature am ngir mën a toogaat ci bopp réew mi te opposition bi gis naa ne ñoom nee nañu votel Benno Bokk Yaakaar Barthélémy Dias loolu wax nee na votel Benno Bokk Yaakaar képp ku ko def yow yaa bëgg a indi fitna ci réew mi ndax su Macky Sall gañee élection yi dina jéem a sampaan dëndam te bu boobaa fitna mën naa am ci ci réew mi lu jëm ci troisième mandat bi ndax mënu leen a yàqal lu bëree bëri. xam nga euh, Barthélémy Dias moom nga ma wax moo toog ci ab télévision ñëpp dégg ko mu ne même ñoom bi ñuy xeex si troisième mandat bi ñoom xam naa noonu nañ ne Ablaye Wade amoon na droit li ma wax dëgg la wala du dëgg. moom moo ko waxal boppam de. kon tey histoire moo dem ba dab ko kon buy wax loolu xam na ne président Macky Sall droit may na ko am troisième te moom nee na bu ñuy xeex troisième mandat du génn ndax xam na ne Macky Sall am na droit am trois euh, euh, poser troisième moo ko waxul waxu ko. moo ko wax man déglu ma rek. na dama ne waaw loolu laa lay bëgg a wax nag waxi Macky Sall ak waxi Barthélémy Dias ay waxi nit la. xamal la dafa lu ñu tënk ñu koy wax constitution dafa lu ñu tënk président Macky Sall mën naa wax ne du ma dem bëgguma ba noppi dem ñu ne ko yow bu la neexoon mën ngaa dem ndax texte yi may na nga dem mën naa wax bëgg naa dem ñu ne ko texte yi mayu la nga def dafa am lu ñu tënk buñ fàtte loolu président Macky Sall bu waxee dara ñoom opposition bi lu président Macky Sall wax dañ naan du dëgg lépp lu président Macky Sall wax rek dañ naan du dëgg. lan moo tax mu wax li ñu bëgg koo gëm ne li li mu wax na ko dëggal te ñoom lu mu wax ñu weddi ko kon lii daf leen arrangé président Macky Sall même bu nee moom bëggul bu wërta am troisième mandat bu ko opposition bi gëmee daf leen arrangé moo tax ñu gëm ko naa wax na lu bari loo xam ne teg nañ ci seen bët ba noppi dañ koo weddi hmm. comprendre nga kon ñun affaire troisième mandat nekkul ci suñ loxo dañoo tënku ci constitution bu Sénégal man personnellement man général président man président Macky mooy suma candidat 2024 maa ngi ko teg nag si buñ ko valider buñ ko valider dama koy jàppale. est-ce que war naa déposer sax. man su ma déggalee man sama conseil. war naa déposer gurtu déposé loolu xawma ko moom la mais man sama conseil suñ ma laajoon dama naan ko demal nga déposer ci citoyen sénégalais nga bu ñu la rejeté ñu xam ne rejeté nañ la. waaw mais nga dem nga dem xam ne bokkoo. waaw mais général. waaw objectivement. objectivement. ak moralement tey. xam nga ne yow référendum bi biñ ko fiy samp limitation mandat. limitation mandat moo taxoon yow tamit xam nga ne ñi doon xeex ngir bañ Ablaye Wade am ñetteelu mandat président Macky Sall ci la bokk te ñu baree bari faatu woon na ci. Ah. léegi Macky Sall mi bañoon Ablaye Wade troisième mandat. Ah. doon ci xeex ba ay nit daanu si. Ah. est-ce que Macky Sall moomu. problème bi Sénégal amoon est-ce que war naa bokk si ñu ko war a indilaat Sénégal. noo defal ndànk du adduna du noonu adduna ay contexte la contexte bu nekk ak ni muy ñëwee ak ni ñu koy gérer comprendre nga te it dama lay wax benn affaire. nga xam ko même bi président Macky Sall di wax ne d'accord ci troisième mandat wu Ablaye Wade mhm. loolu waxu Macky Sall la en personne Macky Sall buy opposé Macky Sall citoyen mhm. mais ba ñu demee ba ci cëppaandaw ga ñi nga xam ne ñooñu lañ fi teg ñu jàng droit dañ ne Ablaye Wade am mën naa am troisième mandat bañ ko waxee ma fa la Macky Sall jógee ñëw sëñ Sidi Mokhtar mu ñaanal ko mu dem wuti réew mi mhm. comprendre nga bokkoon na ci ñi koy wax de weddiwuma ko. waaye bañ demee ba texte yi ba constitution bi ne conseil constitutionnel wax ne mën naa am troisième mandat nekku fa dafa jóge foofu loolu moo ko jox réew mi tey ñii tamit mën nañuy taxaw fii naan munta am munta am mais xam nga dafa am lu ñu tënk man yow tey su ma la saaga woon tooñ la da ngay dem gendarmerie lu tax nga fay dem ñoo fi nekkal yoon ñoom ñii di wax tey jii gëmuñu euh, conseil constitutionnel bi ñu gañee Casamance kan moo leen installé du yoonu du réew euh, justice réew moo leen installé bi ñu gañee euh, mairie bu Dakar ku leen installé préfet bu Dakar moo ñëw installé leen dañ koo nangu lan moo tax kon bu leen arrangé ñu ne baax na bu leen arrangé wul ñu ne baax na. conseil constitutionnel bu ne Macky Sall mën na am troisième mandat mën na mën naa déposer troisième candidature am bu ko ko waxee ñun ñëpp dañoo war a xam ne loolu moo ñu tënk lañ bëggoon ak li am bokkul ñu dem seet nag la mën a ne. waaw mais xam nga tey général ci principe principe. bi tax ñu def référendum xam nga sooy tere benn mbir wala suñuy def tëgg ay loi wala dara dara mooy xew moo tax li taxoon ñu organiser référendum def ci ay milliards principe bi li ko waraloon nday mbili gi mooy limiter mandat yi limiter mandat yi te dañu déggoon président Macky Sall moom ci boppam bi mu nekkee président de la république ne élection yi di ñëw 2019 bu ñu ma falee mooy nekk sama deuxième et dernier mandat loolu la waxoon waa léegi loolu moo waxoon léegi Ismaïla Madior Fall waxoon ko ñoom Seydou Gueye ñëpp waxoon ko ñoom Mohamed Boun Abdallah Dionne loolu da ngeen see bëgg a génn. waa léegi dama ne wax yooyu yëpp jël ko nga teg ko ci balance jël constitution jël constitution bi teg ci balance jël ñoom seen wax yëpp ñoom Macky Sall ak Madior ak Seydou Gueye ak seen wax yëpp d'accord naa Djily Abdou Khadir nga jël ko takk ko ci mbuus teg ci benn balance jël constitution Sénégal teg ci benn balance nga parce que constitution bi moo man a wax yooyu yëpp ñooñu seen i wax la weddi wu ma ne waxuñu ko de. Mhm. parce que man du ma weddi dëgg. Mhm. ñoo ko wax. ñoo ko wax weddi wu ma ko. waaye dama ne nga jël seen wax yooyu ñoom ñëpp nag teg si balance jël constitution bu Sénégal teg si balance. comprendre nga parce que nee naa la constitution bi toujours bu ñu demee ba jaaxle moo ñuy àtte ñun mënuñoo àtte suñu bopp. mais est-ce que mën nañoo wax suñu waxi politique demal nànk rek. ñun ay politique lañ. wax naa la sànq na la Mbaye Sa Diop nee na politique ak dox. wax ba fal nit wax ba fol nit gis nga politique kenn mu ngi cee génne wax te li ngay wax tey nii heure bi ñuy def émission bi 15 heures 16 heures. Mhm. li may wax nii bu 18 heures contexte bi mën na ko changer ma wax leneen. loolu mooy politique comprendre nga. mais bu loolu non dama la la wax. politique waxu non na ngay déglu dama ne la politique. waaw ah. du ma wax waxu politiciens yu leerul mais politicien mën naa nekk politicien ba noppi du wax waxu politicien di wax leneen waaye dama ne la toujours en politique contexte la. contexte bi lii valable mën naa bañ a valable bu subaa ko mais may may ma terminer foofu si point boobu ma bëgg laa wax ne la ñoom lañ wax ñoom ñoo ko wax seeni wax la ñi ko bëgg a gëm buñ ko gëmee da a arrangé moo tax ñu gëm ko waaye ñoom taxaw nañ fi génn wax ba tàyyi ñu ne waa pouvoir bi li ñuy wax du dëgg dañuy fenn mhm. opposition bi ko ba tàyyi mhm. lan moo tax ñu bëgg a wax ji nga xam ne da leen a arrangé tamit ne ñoom ñoo ko waxoon dañ koo war a dëggal lu tax ñu koy gëm te léeg-léeg ñu wax leen loo xam ne duñ ko gëm kon léegi nag ñun comme mënuñoo atta suñu bopp nañ bàyyi constitution bi mu àtte ñu. d'accord mais généralement damaa gëm ne troisième mandat bi soo muytulee man na leen a yàqal ci élection yi. xam nga man. ndax opposition moom lay campagne. waaw man dafa naan xam nga opposition bi ñun xam nga la ñuy campagne bilan ñun dañoo am bilan suñu président dafa def ci réew mi loo xam ne kenn defu ko fi Touba gëm a dëkk gii ci histoire politique gu Sénégal li fa président Macky Sall defal sëñ Touba kenn defu ko fa si si si lim fa def ci lim fa def ci ay tali def ko fa ci ay làmp def ko ci ay forage def ko ci waa ah, dafa waaw am na ñu fi nekkoon yore budget digge woon fi ay digge yi ne at bu dañ def cinq milliards Touba te defuñu ko Abdoulaye digge woon na ko fi ñëw na Sëñ Saliou ne ko at mu jot naa def cinq milliards Touba te defu ko Macky Sall lim def lim def Touba ci douze ans ci douze ans ci dix ans yi mu fi def nii Abdoulaye def fa teer balaa lay wax ci douze ans yi mu fi def waaw mais daf koo def fépp nag demal kol euh, euh, Kédougou hôpital ba mu fa def am amat dans soxo demal Kaffrine non sama waa ji moom lu ne nga ko mën a reprocher ba mu des Sénégal Sénégal bu doon làmmiñ di wax mooy waxal boppam ne leen bàyyi leen maag Macky Sall jërëjëf jërëjëf euh, Mamadou Diène Gueye euh, yow nga nekk conseil municipal ci commune bu Touba nga nekk responsable politique APR ci département bu Mbacké yow yaa yor communication benn Bokk Yaakaar euh, ci département bu Mbacké ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal sànq nee naa la da ngay na jàkkaarloo ak opposition bi muy benn cas deuxième cas bi ngeen jàkkaarloo ak xiif bi sénégalais yi xiif sonn ngeen njëgu yokk yi troisième cas bi mooy troisième mandat bi est mu leen yàqal léegi quatrième cas bi mooy affaire homosexualité ndax dañu gis ne dafa am ñoo xam ne ay kilifa lañ ci réew mi signé woon pétition ñu defoon benn proposition de loi assemblée nationale ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi député yu bokk ci benn bokk yaakaar daal di koy gàntal. te ci fàttali ñi nga xam ne ñooy ay association bi ëmb ay jigéen bi ñu fi bëggee ñu criminaliser viol dañ ko criminaliser ci fàttali ay sàmm journée de l'élevage ay éleveurs ñoo ne woon dañoo bëgg ñu criminaliser vol de bétail ñu criminaliser ko léegi ñu ëpp ci askan bi bi ñu jógee signé pétition ak kilifa diine yi ne dañoo bëgg ñu criminaliser euh, euh, homosexualité ci Sénégal député Macky Sall lànk est-ce que loolu général Diène Gueye jàppoo ne mën na leen a yàqal ci élection législative yi. xam nga euh, Djily Bagdad dafa am lu gën a garaaw loolu histoire boobu jàppoon na ne Sénégal war nañ ko romb parce que bërki démb ba ñu demee fële ci ONU réew yëpp daje di voté benn mbir moo xam ne si ne dafa laal affaire nguur jigéen ñaari réew rek ñoo voté ñoo voté non ñaari réew muy Libye ak Sénégal Libye ak Sénégal. te ñu bëri bi ñuy wax dañoo jàpp ne dañ doon wax naan tubaab yi ñoo nekk seen ginnaaw moo tax ñi ñoo def nangam ñi ñoo def nangam ñu far dem ba ca biir tubaab yi lànke foofu wax jooju dañ ko war a romb ñun kon tey ñi nga xam ne ñoo doon jóg di wax affaire nguur jigéen ba loolu amee ñoo waroon a am honnêteté génn ci plateau télévision yi taxaw ne état bu Sénégal décision bii mu jël leer na ci suñ bopp leer na ci bopp askan bi mais lii nii du projet du xeex du leen xamalaan la politique la ay nit yoo xam ne si ne xam nga gars yi politique dañoo dem bañ ne tous les moyens sont bons loolu la ñuy wax tous les moyens sont bons rey jaral na leen rey nit jaral na leen sàcc xaalis jaral na leen lépp jaral na leen wax ju bon ju mais kenn ku ne xam na ne Sénégal président Macky Sall fii la Obama ñëw di wax waxu nguur gi mu ne ko ñun suñu réew parewul pour def loolu. pour le moment. waaw dafa mais mu ne ba noppi leneen la mu ci mu ne man li fekk maa ngi fi li fekk maa ngi fi. kenn du fi daganal ngóor jigéen loolu kay mooy wax ji gën a leer c'est-à-dire débat jigéen moom xam nga lan la. mooy ñi ko waaw maay xam nga man li ma gëm mooy sénégalais yi ils très conscients man loolu laa gëm xam nga xam nañ ne ñun politiciens yi man dama ci boisson parce que xam nañ ne ñun politiciens yi bu ñuy wut lu neex la ñuy wax comprendre nañ lu ñu neex la ñuy wax parce que opposition bi xam nga dañoo yërëmut sax seen bopp parce que nit da ngaa war a xool exactement xam li ngay wax ndax même nekk politicien xanaa taxut a nekk yéefar te am na yenn débat yoo xam ne si ne da mën nga cee xuus ba mu ba mu ba mu yóbbu la sax ci nga nekk ak kéefar te mooy wax lu dul dëgg ba noppi di ko dëggal dem ba gëm ko te mu wér na la yow xam nga ne affaire ngóor jigéen Sénégal waxuma la dara mais bu ñu ko bàyyi woon noonu sax nii kenn waxu ci. quatre-vingt-quinze pour cent musulman ak ñun tradition yi ñu am ak fi ñu jaar ci islam ak kilifa yu ñu am. xam nga ni nguur jigéen mënut a percer ci biir Sénégal man gëwma loolu dama ne la Sénégal yi conscient na nga xam ne politiciens yi dañuy wax pour seen bopp Sénégalais yi ñoom ñun politiciens ñoo gën a tuuti ci Sénégal ñun ñoo ëpp coow fii lu fi yàq ñoo ko yàq te ba noppi ñun ñoo gën a tuuti ci Sénégal Sénégalais yi toog seen biir kër di ñu déglu ñun xam nañ ne politiciens yii opposition bi dañuy wax pour jot ci réew mi maa boobu président Macky yi nekk moom lañ soxla yéen nag ñun xam nga lan lañ soxla liggéeyal Sénégal te dañ cee tàmbali toogaat si banc bi waaw toogaat si banc bi ba noppi continuer liggéeyal Sénégal parce que nag attention da ngaa foog na ñun da ngaa foog dañuy sànni nguur gi pour pression yi daw duñ ko def dama la koy wax ba mu sànni nguur gi ñun ragaluñu tàppetuñu te nguur gi tamit jëluñu ko ci ay yat jëluñu ko ci ay violence dañoo voté gagné pare ngeen daal pour lu xew-xew par dama ne ñun jàmm la ñuy wut mais bu leen dugal réew mi si kaw man la ma lay wax lu leer ñun jàmm la ñuy wut ci réew mi moom la ñuy ñaan mais nag ragal du ñu xañ dara ñun nekkuñu ay ragal yoo xam si ne ragal la ñuy xañ xalaatuñ ko sax parce que tamit ne affaire ragal ne doxal leen yoon waaw ñoo ngi doxal yoon doxal yoon moo tax yu bëree bëri ñu nangu ko yu bëree bëri ñu nangu ko parce que Sénégal xam nga ñu bëri non démocratie moom salfaañe wuñ ko dëgg neexul fii fii ci bon ci nguuru Macky Sall dong ngay gis ku toog ci ab ku toog yore kiyam di daggi saaga président de la république nguuru Abdoulaye Wade amul woon nguuru barki Serigne Touba Assane Diouf te yi lay toog géeje waaye gii dende rakk Macky Sall di ko dagg saagaay ndey ba noppi xëy dem naan kafeem fii nga koy gis lu leen neex ñu wax bu dem demal nga def ko Gambie ba fa yaaya jaame nekkee demal nga def ko sax fii ñuy wax nii rek Rwanda gii kii nag. Paul Kagame demal nga def fa loolu demal benn citoyen taxaw saaga ndey Paul Paul Kagame la xaw ma. demal waaw demal nga def ko. d'accord léegi léegi léegi Mamadou Diène Gueye léegi nag ñun dellu si nag ci seen département bi nga xam ne tey président Macky Sall mos na leen wax na leen yéen euh, fexe leen a génn seen bopp yi nga xam ne tey dañ ko naq si dañ ko naq si ndox mi yéen département Mbacké. loolu moom ànduma ceeg moom. waaw loolu moo ko waxoon waaw moo ko waxoon mais ànduma ceeg moom moom laa faral waaye ànduma ceeg moom. ndax tamit lim liñ ko defal fayuñu ko. Ah waaw waaw boo qu'on dise la vérité. ànduma ceeg moom parce que ñun bi ñu ñëwee 38000 voix lañ ko jox 2012 yóbbu bokk ci ñëw yóbbu Ablaye Wade 2 4 appui. ba noppi ñëw élection 2012 législative 2012 gañal ko département bi te ba muy séddale ay cër joxuñu ba muy séddale ay cër ñu ko doon politique da leen a weesu ñu dem jox keneen beneen dem jël ministre ba jox ko keneen koo xam ne si ne dañ ñu ko imposé mosu ñoo nomeel ministre mosu ñoo nomeel directeur te ñu lu ñu xew ñoo ngi kërti kërti kon bu ñu nekkee ci biir ndox mi moo ñu joxul loxo pour ñu génn. kooku mooy dëgg mais euh, général yéen da faral di wax ne naam yéen a ngi perte département bi mais li ngeen fii am si voix day ëpp sax ay département dama ne la 62000 voix la Géejawaay am gagné département am ñun ñu am 69000 voix gagné perte suñu département département bu Mbacké moo ëpp électorat région Sédhiou ëpp ko région Kaffrine ñoo ñuy gagné ñun mën na leen a ndëkkee ba noppi di laaj añ. commune Touba waaw loolu mooy dëgg. Mm-hmm. te man lépp ñoo ngi koy def mosuñoo bàyyi wax naa la man ba léegi maa ngi ci parti bi te ñëpp a ngi góorgóorlu kooku mooy dëgg. mais mais yéen nag euh, élection législative yi ndax yéen locales yi sax dama gis ne 7000 euh, voix sax mun leen ko am ci commune Touba ak électorat bi ni mu rëyee lan nga jàpp ne moo waraloon loolu. waaw li mu waraloon loolu moom bari na ma parce que élection locale yi bon coow li bari woon candidat bi. yu ci bëri woon daal bëri na mais en tout cas comme weesu ko weesu nañ ko. mais daal waa département Mbacké ñaari yoon après élection locale yi pour waajal élection législative yi est-ce que ñaari audience yooyu jàpp nga ne mooy solution waaw xam nga audience bu njëkk bi de baax na mooy bi mu recevoir tendance ñu ñu bëri demoon nañ mais bii moom dafa am ab groupe bu génn taxaw di mer di saaga ñu recevoir leen léegi nag loolu day wanew yoon ne ku bëgg président recevoir la da ngay dem di saaga te loolu baaxul d'accord ma ci parce que ñi génnoon dañ doon rebelle wu di saaga ñu recevoir leen. am nañu yokkaat nag ci xar mi karaw am na ñeneen ñoo xam ne si ne ñoo ngi génn ñoom tamit daal ne gannaaw wax lu baax du jëriñ dara wax lu bon ay jëriñ nan wax lu bon te baaxul ñu koy conseiller Macky waruñu ko def mm. parce aussi mbir tamit dafa am nuñ koy gérer daal mm. parce mbir tamit aussi da koy maîtriser xam li ngay def mooy lan audience bi njëkk ba moom baaxoon na parce que man bokkoon naa ci ñu doon bind audience bi tendance yëpp a demoon jeunes yi femmes yi leaders yi sëriñ si commercant yi syndicat yi sax dañoo demoon. Ah. mais audience bii nag moom benn groupe ba taxawoon fee di rébellé wu tudde seen bopp résistance ñu lijjanti leen bañ toog ak Macky Sall jox leen xaalis ñu si dëkk bi fekk ñoo xam ne si nañ depuis Macky Sall nekkee Macky Sall ba léegi ñoo ngi koy jàppale mosu ñoo am juróomi junni. kon kon fi am biir Touba. am bien sûr am na am na kooku mooy dëgg. mais mais élection yi jàpp ngeen di ngeen gagné département ah, dinañ gagné moom moom dinañ gagné. loolu moom man nag yaakaaruma ne di ngeen gañee man man maa la wax ne danañ gañee xam nga élection yi fii yi mas a jaar invité am na yoo jàmm ne la dañuy perte ñaari élection jaar na fi boo wax man la mais même yii nii dañ ne ko teg maa ngi ci bi gis naa ne dañuy gañe dañuy gañe département bi dañu gañe tamit commune Touba non commune Touba gaw ma ko ah waaw gaw ma ko mais mais bu ngeen perte commune Touba man dañuy yokk xam nga man du ma fen xam nga man du ma naxanteeg Macky Sall man du ma naxanteeg Djily Bagdad pour nga invité ku am courage comme man yombut kuy politique te nekk ci pouvoir parce que man du ma naxante. mais général. oui ma c'est que électorat Touba moo bëri. waaw dama la wax man bu nit ñi man de massivement man ma non du ma gëm mooy danañ yokk taux bi yokk boo xam ne mën nañ gañe département bi mais gëw ma ne danañ gañe commune bu Touba. Hmm. waaw du ma ko dig Macky Sall am na nu mu doon demee nag ñu gañe ko mais dafa am lu des. d'accord waaw jërëjëf euh, général Diène Gueye ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm di rafetlu sa teewaay ci émission bi. maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi lay sant di la gërëm Djily Bagdad di nuyu ñëpp di nuyu waa Touba ga ma jógee di wax na ñun ñëpp dañu ànd bennoo jox majorité président Macky Sall di leen sant di leen gërëm merci beaucoup. jërëjëf euh, Mamadou Diène Gueye ñu naan ko général mu nekk euh, conseil municipal ci commune bu Touba mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci rajo réew mi FM ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadir Seck Mamadou Diaw Diall ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm